la la taw yi bari lool wadd ci njeextalu ay bés bi ci Sénégal gépp ak yi musiba ak tiis yu mu àndal la yéenekaay yi la Le Soleil xamal ñu ne ñetti doomu aadama ñàkk nañ ci seen bakkan ci ndox yu métti yooyee lu toll ci ñaari téeméer ak juróom ñetti bërëb it yu ndox yi nangu xayma nañu ko fii tiis wi waral njiitu réew mi cim ngan ci Arabie Saoudite yëkkati kàddu masawu bu baax jaale njabootu ñett ñi ñàkk seen bakkan Libération ne taw yu bari yi koy tiis ak njàqare lañu fi jur ñetti tut tànk yu faatu ci Ndakaaru ak Sadel benn liirëb juróom weer bu lab ci caaxoy gaar gu ak ñaari at yu nu génne néewum ca Cambérène 2 ca Sadel benn taaxab ban bu fa màbb xaaju guddi ci kaw yi taalibe ak seenub sëriñ gu nekk fukk ak benn at faatu ca ñaari taalibe am cay gaañu yi métti ba ñu rawale leen ci hôpital bu Ourossogui bilan bi ci laat tribune gën a diis ndax ñoom ñett ñu faatu ci ndakaaru lan wax ak kenn ca maatam muy ñeent ca àndalaay 1 ñu ne benn liir bu faatu ci ndox yi ci biir néegab yaay ja Cambérène gu nekk fukk ak ñaari at di Mohamed Selou Diallo bu courant bi maas foofe ñaar ñeneen ñu ñàkk seen bakkan ca Fuuta ak Yëmbal Nord tribune ne teg ca gox yu bari nag ci ndakaaru ndox yi nangu leen Moussa Niang bokk ci pôle communication gëm sa bopp ba tey ci yéenekaay bi di la tribune moom waame gu métti gi fa ko teg mooy ci ñàkk mën ak télégu président Macky Sall weneen wutis ci Sénégal xewe ci Kédougou ak soxna Sidi Doura Diallo doon fa mucc fa faatu ci anam yi métti lool ak liir ba l'info ne waa kër docteur takk nañ ndigg ya ngir daal di sóobu ci xeex bi li ko waral di seen naatango yi soxna si la ñu tee ci yoon procureur bu Kédougou ne ñooy njaag ci paatug yaay ak doom ndaxu càggante ak ñàkk doxale li gën a néew ci yoonalu kër docteur gis-gisu procureur nag ba waral jàllale gi safaanoo lool ak bu ministère de la santé ak syndicat yi ci waa kër docteur ndax ñoom ginnaaw bi ñu amalee enquête seen biir ministère bi lu mu gis mooy ni soxna si dalal nañu ko faj ko taxawu ko ci anam yi mu waree ba di ndogal ñëwee ci lay fo ba tey njiital SAMES docteur Yéri Camara ne dinañu amal ay assemblée générale ci Kédougou ca dund ca yam bu soppeeku amul daañ ca toftal ay grève yu ñuy tollanti docteur Camara sàkku ci état Sénégal ñu àndaat ak seen sago docteur Ibrahima Aïdébé moom président association gynécologue yi yoon waaye procédure yi gënal ca lànkuñu ubbiteg information judiciaire sus a moom ci gàttal gis ne ministre de la santé soxna Marie Xemes Ngom dafa solal robab avocat ay ñoñom médecin ndax sànni nañ ca pôle mbalit ma càkkuteefu procureur bi observateur xëyee beneenum tiis metti lool di soxna seneen tolloon ci ñeen fukki at Aminata Touré ñu ko daa woowe méta dañ ko fekk ñu rey ko ci anam yu ñaaw sànni ci àllub Kolda bi ci yoonu Fafakuru ca France la newoon ñëwoon vacances Gakou jàpp na ne mooy mbër bi gën ngir soppi Sénégal grand parti mu ne taxawuluñ ko rek ngir di topp saa ne ci ginnaaw yeneen candidat yi ci direct news nataalam moom alaaji Malick Gakou mu yëkkati ñaari loxo ya dina doon mu ne bu keroogee 2024 mbërëb sénégalais yi dund métit te faw ñu rëddaat nag yoon yi nga xamante fa lañ bëgg a jaarale réew mi ci wàllu koom-koom ak dundinu askan wi ci yooyu jamono benn bokk yaakaar moom mu ngi rafle ci dëggam ci source a benn am na yàqin mu ne ne opposition bi suñu demee présidentielle ak président Macky Sall duñ ko sax seen ndax roppi gum leen di roppi ñoom gaay yi ndax président ci gis-gisu Gaston Mbengue liggéeyal na bu baax Sénégal assemblée nationale mu jàpp ne opposition bi candidat yi ñu fësal du seeni candidat dëgg ay faux candidat lañ ca bu keroogee ndajam la ñuy daal di yëkkati seen loxo ñooñee ñu nëbb ndax ñoom yàgg nañu naxee mu ne presse